Vous êtes sur l'imamiti.com, l'actualité des stars, people, divertissement et faits divers au Sénégal et en Afrique. Euh, Boutamba Kunda, talaata tey jii la nuy xaar lu mel ginaaw bi nga xamanteni am nañ retour de parquet leeral li Moussa Omar Gueye ci Tamba. mën nañu japp ni ñi nu tuumaal ay defkatu njombe ñu faat commandant Tamsir Sané am nañu lu ñu naan retour de parquet ndaxte yegsi nañu ci tribunal grande instance ci altine bi bi ñeenti waxtu ci ngoon jotee ba toftalu fanweeri simili jot nañ fa toog lu ëpp waxtu waaye mujj ñu jàkkaarloo ki di Demba Traoré procureur de la république bi nekk ci Tambacounda ñoom ñi nga xam ne ñoom ñëf ko ñetti defkatu njombe yi nag ci fàttali alxames benn fan ci weeru août ba nagini si ñi ngi nekkoon fi nga xam ni moom mooy ci brigade gendarmerie bi nekk ci Koupantoum ci altine bi ay booru ñaari waxtu ñu indi leen ci commandement légion gendarmerie bu Tambacounda fekk nag am na ay daamar ak ay jumtukaay yu mat sëkk ci wàllu kaaraange yoo xam ni topp na leen ci fàttali njombe soosu nga xam ni moom lañ leen di tuumal ñoo ko def ci poste finance bi nekk ci Koupantoum mi ngi amoon alxames ñaar fukki fan ak juróom jàpp aljuma ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru sulet bi ñu génn ñu daal di nag tuumal leen ñoo fàttale bakkanu commandant Tamsir Sané fi mu ne nii nag gis nañ ni yegg si nañ ci Tambacounda ci altine bi yem ak juróomi far ci weeru août ñuy xaar nag ana kañ la ñuy jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy procureur de la république bi nekk fii ci Tambacounda bu paree ci loolu ñu xool ndax dañ leen di jàlle fa li nga xam ne moom mooy ca Ndungu Sine maison d'arrêt correction wala dañuy amaat beneen retour de parquet li ci kanam rawu li gët Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Média